juróom-ñetti cas communautaire ñu fës kon ci mbas mi ci altine ji yemboo ak fukki fanak benn ci Europe mai atum 2020 ñu xayma yooyu les cas communautaire nag ca Liberté 3 benn Mbaaw benn Pikine benn Touba ñaar ak Tambacounda ñett mu def it nag téeméeri cas ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent mu di nag ay cas contact suivi yooyu yëpp nag boo ko boolee mu def nag 177 cas positif ci ba supp tey bi maanaam téeméeri cas positif ak juróom-ñaar fukk ak juróom ginnaaw nag ñu amal 910 sept tests réalisés maanaam juróom ñeenti téeméeru test ak fukk ak juróom-ñaar mu def it nag juróom benn fukk ak juróom ñi feebaroon te daal di wér kon ci bésub tey jii bilang bi doon na nag fukki doomu aadama ak juróom-ñeent ñi mbas mi daal di nag faat mu def juróom ñaari téeméer ak fukk ak juróom ñi wér ak junne ak téeméer ak juróom fukk ak benn ci ñi nekk ba tey kon ci l'hôpital mbas mi nag mu tàmbalee bari kon ci réewum Sénégal ba tey jile ci bésub 11 mai bi ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn juróom ñett doon ay cas grave ak benn évacué mu di nag lu ruusee tey jëlee kon ci point de presse bu waa ministère de la santé ak action sociale daal di amal.